dóor saaga sàkku wala sax faat bakkan xeetu ñaawteef yu ni mel la yenn ci jigéen ñi di jànkonteel saa su nekk ba ñu amalee dox nemmeeku ci altine ji ñenn si ñu tasal di ñu xamal ni violence bi naam bari na lool waaye ci néegu sëy la ëppee. li génn ci biti moom rek lañ gis li nekk ci biir kër yi nekk ci biir néeg yi moo gën a metti gën a tar ka li génn ci mbedd mi jigéen ñi boo ko ci gis tey kii kanamam toj na. kii bëtam toj na te lépp lan moo koy def violence bi ci biir kër gi moo koy def bu la njëkkër sonal golo dina la sonal wala si jëkkër sonal la mais doo mën a bouger fenn doo mën a dem fenn parce que tey bu la nit sonalee tey jii da ngay dégg ñu naan la muñal ndax say doom muñal ndax say doom est-ce que yow boo muñee di nga fekkee sa njariñu doom yooyu genre violence yooyu su ma ko déggee mm, lu koy def si jigéen daf may naqari je pense que góor dëgg du teg loo xamante ne day métti jigéen quoi parce que da nga war di ko neexal di ko toppatoo. su fekkente ni dem na ba violence yi bëri si côté jigéen ñi waaw nañu ko xoolaat société bi lan moo waral lii ndax euh, violence wawul ci kenn ni góor ni mag ni ndaw ni jigéen ñëpp si bokk yam violence wawul. léeg-léeg ñàkk wala jëfandikoo yenn ci xeetu sinay bar yi bokk na ci lu waral la yile violence bu ñu sukkandikoo si ñenn ñi. mën na am pauvreté gi maanaam ñàkk gi mën na nekk ñàkk gi mën na am nit ñi di dox te seen xool tàng ba tax ku ñu rek.

des fois tam problème da koy def parce que di nga tasee góor ñoo da nga ñun ñu nekk fi ci marché bi des fois da nga gis nit koo xamante nii day dox sax di waxtu doo jàpp mii xel na naan yàmbaa la mii xel naan xaat bi xaat bi ëpp problème yee bari daal fi ñu nekk nii ña ca des ñoom yaakaar nañu ni fiirange ak war mooy indi yile fitna boo fiiree mën na la dugal ci lu nekk kamuy ku jigéen ki kamuy ku góor ki ku ci fiir rek mën na la indi ci lu nekk parce que mën ngaa dem génn ñëw sa jëkkër na la da nga demoon fii wala danga jaad fii mën ngaa dem ñëw sa jabar na la da demoon fii bu ko defee histoire commencé xeex ñëw bu boobaa violence lay doon ci biir kër gi. yow ñoo jàkkaarloo ni góor bu waaxoo ba ñëw ci jigéen rek yërmaane moo ko war a indi ci moom yëppal ko suturee àddinaam wari moo bari daal ndax léeg-léeg da ngay benn confiance jox ko góor te fekk na moom confiance boobu nga koy jox moom gëmu ko. muy def rek lu xool ci yow intérêt wala mu la toroxale wala yeneen ak yeneen. bu xoolee ne intérêt boobu yëpp amul mooy waral gën a bëri loo xamante ne ni daal violence bi di gën a bëri. Ndey Soxna Penda Soda jigéen ñi àndandoo di yuuxu wàllu waaye it di sàkku ndimbal ci gouvernement bi ngir mu wutal leen ku leen teewal ca pencum ndaw réew mi. seetaan moom dafa metti fi nekk nii moom fi ko sànni bu ay loxo fi mu nekk nii dañ cee war a jóg nag bu baax nag def ci lu ñu mën suñu kéem laay kàttan ñu def ko ci nag. waaw toogaay moom dafa wees fi mu nekk nii waaw parce que ku mu méttiwul boobu laa dalul jigéen ba sa ñoo ragal a sëy léegi fi mu nekk nii dëgg fa yàlla man sama classe gi man damaa ragal a sëy sëy appartement dama waxatuma ko fenn moom nañ ne nii fu ñu yuuxootee fa la ñuy daw dem parce que dañoo sonn te bu ñu yuuxoo duñu am fu ñu daw dem sonn nañ dañoo ñoo ngi woote wallu nag ci violence yi ci biir kër yi état rek moo ñu ci mën a dimbale ñu am ku ñuy taxawal ensemble national pour jàppale jigéen ñi jigéen ji dund lu mel noonu su ñu eggee ñu mën laa xeexal ba jàppale ba beneen góor gu ko bëgg a def dina xalaat sart yi ko ci fekk wala daane yi ko ci fekk waaye amaana bu ñu amulee loolu tamit ci lii rek la ñuy mën di dund force ñu am lu ñu mën a dooleel ci kaw lay jógee nag waaye du ay wax ci ay penc yi wala ci ay quartier wala ci ay yooyu. muy góor di jigéen. mag wala ndaw daldi ñawlu lu ni mel waaye it di invité gouvernement bi mu jàppale leen ci xeex fitnal jigéen ci mim réew mu takk fi ba faw